waaw mu ngi noonu mu ngi noonu doy na waar. waaw situation mënatuñu mënatuñu contenir ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi parce que lii nekk na loo xam ne euh, ndax ndax doy ndax doy na waar ndax ndax doy na waar lii nekk na lu doy waar Euh, jàmmarloo bi nag euh, métti na trop gis nga ñoo ngi taal ñoo ngi noonu di taal kër euh, ancien ministre monsieur Matar Ba waaw gis ngeen ko noonu waa Dakar Buzz ñu ngi leen koy won chers téléspectateurs gis nga ñu ngay taal ñu ngay taal mbaa dañu taal oto mbaa dañu taal oto dafa mel ni oto bi a taal loolu doy na waar ndeysaan ñoo ngi taal oto bi ñoo ngi taal gis nga gis nga gaa yaa ngi taal kenn xamul lii lan la ah chers de de de Dakar euh, Dakar Buzz comme ni ngeen ko gisee ñoo ngi toj oto yi ñoo ngi toj oto yi ñoo ngi taal lii daal kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm tey ci tey lii doy na waar ah doy na waar doy na waar. téléspectateurs de Dakar Buzz ñoo ngi leen di wax ni rek wax dëgg yàlla fii lañ nekk euh, ci Dakar Sacré-Cœur ci kër gi nga xam ne mooy ancien ministre des gis nga oto yi ni ñu koy taalee noonu oto yi ñu koy taal lii yaa ngay tàkk oto yaa ngay tàkk gis nga taal nañ oto benn wala ñaar wala ñett soo xoolee oto yi woon yëpp taal nañ leen gis nga oto yaa ngay tàkk dégg nga nga yaa ngi dégg ñu naan yaa ngi koy dégg noonu yaa ngi koy dégg ñu naan libéré Sonko lii soo doy na waar ñoo ngi ci wetu jumaa ji ñoo ngi ci wetu jumaa ji ñoo ngi ci wetu jumaa ji ñoo ngi naan libéré Sonko taal nañ oto yi ndeysaan ndeysaan taal nañ oto yi c'est téléspectateur de Dakar Buzz ah, ni ngeen ko gisee rek ñoo koy wan fi nga xam ne mooy Dakar Sacré-Cœur taal nañ kër gi nga xam ne mooy kër Matar Ba waaw ndeysaan gis ngeen lii doy na waar lii doy na waar lii doy na waar chers téléspectateurs de Dakar Buzz ah, taal nañ fi nga xam ne mooy kër ah, Amadou Ba ancien ministre des sports ah, taal nañ oto yi ndeysaan lépp loo xam ne oto moo fa gaare woon taal nañ waaye lii ñu xay du yem ci bopp borom kenn xamul ndax oto bi ministre yi moo ko moom kenn xamul ndax ñi nga xam ne ñoo dëkk ci kër gi ci gox bi ñoo ko moom waaye nekk na loo xam ni euh, lu doy waar gis nga ñoo ngi koy taal noonu euh, ñoo ngi koy taal noonu lii nag jàmmaarloo bu metti la depuis boobu ba léegi euh, ñoo fi nga xam ne mooy Sacré Cœur jàpp ci beneen bi daal lii daal kenn mënu la ko wax ndax ñi nga xam ne ñoo nekkoon garde rapproché yi daw nañ gis nga mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu lii doy na waar Euh, lii doy na waar taal nañ oto yëpp taal nañ oto yëpp doy na waar doy na waar gis nga gis nga waaye doy na waar doy na waar gis nga euh, chers téléspectateurs gis ngeen ko Dakar Buzz taal nañ oto yëpp taal nañ oto yëpp Kër Matar ba yàq nañ ko saccagé nañ ko saccagé nañ ko lii doy na waar lii lii kenn mënu la wax lan la ndeysaan jàmmaarloo bu metti metti moo moo xew fii. jàmmaarloo bu metti moo xew fii ni ngeen ko gisee jàmmaarloo bu metti moo xew fii jàmmaarloo bu metti moo xew fii lii doy na waar Kër Matar ba ministre euh, Kër Matar ba ancien ministre gis ngeen oto yaa ngi nii ñu taal ay oto yu bees la ndey Kër Matar ba ancien ministre des gis nga daal nañ ko ndeysaan mbir mi metti na lool lool lool ndeysaan mbir metti na c'est très compliqué c'est inexplicable kenn mënu la wax lii lan la waaye tey ndaw yi dañoo fi pour doy na waar tey que ñoo ngi Kër Matar ba ancien ministre des sports lii doy na waar lii doy na waar lii doy na waar chers téléspectateurs de Dakar Buzz gis ngeen gis ngeen tàmbali na doy na waar lii kenn mënu la wax lan la waa lii bu sapeur ñëwul kenn xamul fu mu jëm waaw lii bu sapeur ñëwul benn xamul inspecteur waaw bu sapeur ñëwul kenn xamul fu mu jëm ndeysaan en tout cas doy na waar ku mën a woote wooteel ku mën a woote wooteel ñu woo sapeur ci mën a fay lii wax dëgg yàlla ñu woo sapeur ñu woo sapeur ñu woo sapeur a jamono ji wax dëgg yàlla lii doy na waar lii doy na waar ñu kër Matar ba ngoog kër Matar ba ñu ñoo ngi taal kër Matar yéen ñi nga xam ne yéen ñi seetaan a travers oto bi moo ngi tàkk mu ngi tàkk oto yëpp a ngi tàkk oto yi fi gaaroon yëpp a ngi tàkk ah, nekk na lu doy waar nekk na lu doy ndeysaan gis ngeen ko gaa yi nañ dem gaa yi nañ dem gaa yi nañ doy na waar gaa nañ doy waar gaa yi ñëwal rek nank rek gaa yi ah, nank rek nank rek nank rek nank rek ndeysaan lii doy na waar ndeysaan doy na waar lii de Kër Matar ba nit ñaa ngi koy taal Kër Matar ba Kër Matar ba mu ngi noonu tàkk na mu ngi tàkk lii kenn xamul fan la jëm lii kenn xamul fan la jëm ah, waaw kenn xamul fan la jëm lii Kër Matar ba mu ngi tàkk gars yi gis ngeen ko noonu gars yi gis ngeen ko noonu gis ngeen gis ngeen ko noonu mbir mi doy na waar mbir mi doy na waar lii doy na waar waaw gis nga bu ñu dina doy waar oto yëpp a ngi tàkk lii doy na waar lii doy na waar oto yëpp ngi tàkk fii Kër Matar ba ancien ministre gis nga c'est compliqué situation baa ngi nii lii moo xew Sénégal lii moo xew Sénégal doy na waar doy na waar o 44 44 kër gi bu ñu deful nang dina tàkk bu ñu deful nang dina tàkk lii jàpp na ndeysaan lii kenn xamul lu mu doon ndeysaan lii doy na waar gis ngeen ko gis ngeen ko lii moo xew lii moo xew téléspectateurs yi lii moo xew fi nga xam ne mooy Sacré Cœur di kër ancien ministre euh, Matar Ba gis ngeen ko gis ngeen ko doy na waar daal doy na waar gars yi gars yi ñu bàyyi xel tam ci mbir yi waaw nañ bàyyi xel ci mbir yi nañ nañ bàyyi xel nañ bàyyi xel ci mbir yi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax wax dëgg yàlla lii métti na c'est compliqué doy na doy na waar doy na waar nañ xool waa kër gi situation bi métti na wóorul woorul wóorul wóorul doy na waar doy na waar woorul wóorul nous sommes en direct cher Matar Ba euh, ancien ministre des sports gis nga oto yi ni ñu ko taalee noonu waaw jàmmaarloo bu metti na loolu gars yi gis nga lii metti na trop metti na trop gis nga wax dëgg yàlla fii mooy kër Matar Ba ancien ministre des sports ndeysaan chers téléspectateurs comme ni ngeen ko gisee ni koy won euh, di ko won en direct ci euh, ci ci Dakar Buzz euh, comme ni ko gisee mbir mi doy na waar ni mbir mi doy na waar lool lool xam ne yéen ñuy seetaan en direct ci Dakar Buzz gis ngeen ko gis ngeen ko gis doy na waar lii doy na waar lii kër gaa ngi nii kër gaa ngi nii di di tàkk bu ñu deful nànk rek dina laal kër gi. courant ak fii lu courant yeeg yëpp lii doy na waat te ñoo ngi jege ñoo ngi jege jumaa ji nga xam ne moo jege moo jàkkaarloo kër gi nga xam ne mooy taal nañ ko ndaw yi taal nañ ko mu doon lu doy waar ndeysaan bilaay doy na waar incha allah incha allah gis nañ ko fi gis nañ nañ ko voilà euh, gis ni ngeen ko gisee dañ wax naa nañ ko non non yor ma connexion waaw gis ngeen ko de gis ngeen ko noonu Euh, kër gi tàkk na kër gi tàkk na kër gi tàkk na kër gaa ngi tàkk kër gaa ngi tàkk gars yi xool leen mu ngi noonu waay mu ngi kër Matar Ba bilaay bilaay booy taal nañ ko ñu kenn mënu la wax lii lan la lii doy na waar lii doy na waar kenn mënu la wax nu mu toll ne waaw waa Dakar seeta yi ngi seetaan xolo oto yaa ngi noonu gars yi jumaa ji lañ ko calculer gars yi nañ ko bàyyi xel gars yi jumaa ji nañ ko bàyyi xel nañ bàyyi xel jumaa ji lii nii doy na waar chers téléspectateurs de Dakar Buzz gis nga ngi génne génne waa kër gi waa kër gi yaa noonu di génn ñu ngi leen lii nii doy na waar lii doy na waar lii lii doy na waar chers téléspectateurs de Dakar Buzz tey lii moo xew fi nga xam ne mooy Sacré Cœur euh, di kër Matar Ba donc nit ñi taal nañ ko ndeysaan euh, taal nañ ko kenn xamul lii lan la lii doy na waar lii tey lii la lii la la ñu def lii la ñu def mu nekk lu yéeme lu doy waar. Euh, ndeysaan chers téléspectateurs de Dakar Buzz ni ngeen ko gisee noo ngi noonu doy na waar gis nga kër gi kër gi kenn xamul kenn xamul am na ñu nekk si biir am na ñu nekk si biir lii dañu woo sapeur ñu xool lan lii kenn xamul lan la bu fekkee ay bu fekkee ni am na ñoo na ñoo xam ne ñoo ngi ci biir kër yi ci biir kër gi nañ leen génnee ndeysaan lii doy na waar gis ngeen oto bi nu muy tàkkee noonu euh, chers téléspectateurs de EDB e euh, de de de Dakar Buzz ngi ñu jégalu ndax mbir mi dafa dafa dafa yéeme dafa yéeme dafa yéeme dafa yéeme yéeme na lool lool lool ndeysaan jumaa jaa ngi noonu jumaa jaa ñoo jumaa jaa ngi noonu. jumaa jaa ngi noonu non non jumaa jaa ngi noonu mbir mi mbir mi mbir mi daal kenn mënul wax nu mu mel euh, lii génn nañu ñu génn ñu nekk ci kër gi nañ génn ñi nekk ci kër gi nañ génn ñi nekk ci kër gi nañu génn ndax lii wóorul mu ngi jàpp garab gi donc gis ngeen ko ak courant bi wóorul ak jumaa ji jumaa ji gis nga jumaa ji nga xam ne moo jege euh, waaw gis ngeen ko gis nga chef téléspectateur de Dakar Buzz lii lañ fi jëlee ci nga xam ne mooy jàmmaarloo bi xew ci ci ci diggante ndaw ñi gën Kër mataar ba ancien ministre gis na nii lañ ko def nii lañ ko taalee oto yaa ngi nii di tàkk jumaa jaa ngi noonu euh, jege na jumaa ji wóorul fi nga xam ne courant yi aussi waaw ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi am nañ euh, njàqare am nañu tiitaange Euh, nekk loo xam ne lu doy waar ñu leen koy won en direct euh, ci ci ci Dakar Buzz comme ni ngeen ko gisee nekk li nit liggéey liggéey boo xam ne euh, waaye mu ngi noonu waaye ñu leen koy won rek waaw chers spectateurs yi ni ngeen ko gisee gis ngeen mu ngi noonu gis ngeen mu ngi noonu gis ngeen mu ngi noonu mu ngi noonu Kër Matar ba taal nañ ko taal taal oto yi taal ko gis ngeen ko noonu jumaa jaa ngi nii gis ngeen ni ñaa ngi ci biir kër gi waaw xaw ma am na ñu nekk si biir kër gi nag génn nañ wala génn ñu am na ñu nekk si biir bu fekkee génnee nañ leen ñi nekkoon si biir kër gi génnee nañ leen ah, ñi nekkoon ci biir gi kër gi génnee nañ leen waaye am nañu terewul am nañu des si biir am na terewul am nañu des si biir am nañu si biir ah, gis nga gis nga noonu doy na waar jàpp na garabu koko bi eh, bu jà boo moytuwul dina jàpp kër gi dina jàpp kër gi waaye nañ bàyyi xel gars yi bàyyi leen xel ci li ngeen di def gars yi reculer leen tuuti gars yi nañ reculer gars yi ndeysaan ndeysaan ñëwal ñëwal ñëwal daa ñëwal ñëwal ndeysaan ndeysaan lii doy na waar lii lii doy na waar lii bu bu jàpp bu bu sapeur ñëwul lii dina jàpp ci yeneen kër yi lii ëpp na lii lii doy na lii doy na waar lii doy na waar gis ngeen ko affaire bi day gën a extra day gën a extraordinaire gis ngeen ko gaa yaa ngi noonu dafa mel na dafa mel na ay ay ay ay échange la wala wala nga xam ne mooy explosion bu extraordinaire bi nga xam ne moom nañu waaw ndeysaan kër Matar ba ancien ministre des sports tey ndeysaan gis nga lii la nii la demee ndaw ñi nii lañ ko nii lañ ko def ndax euh, Sénégal wax dëgg yàlla xaaruñu woon xaaruñu woon lii xaaruñu woon lii ndeysaan xaaruñu woon lii Kër Matar ba ancien ministre des sports donc noonu la demee gars yi gis ngeen kër gi tàkk na taal nañ oto yi euh, nekk na lu doy waar doy waar doy waar wax dëgg yàlla jàmmaarlu bu metti metti ndax li lii kenn ya xalaatu ko woon kenn yaakaaru ko waaye gis nga mu ngi jàpp fi nga xam ne mooy kër gi jumaa ji jumaa jaa ngi nii jàkkaarloo kër gi nga xam ne mooy euh, kër këru ministre Matar ba donc oto yaa ngi nii oto yi mat na juróomi oto. man la lu mat juróomi oto am na ay yeneen oto yu nekk si wet yi sax mais xamuñu ñan ñoo fi nekk ak seen i borom gis nga garab bi garab bi moo ngi jàpp garab bi moo ngi jàpp kenn xamul lii lan la garab bi moo ngi jàpp jumaa ji tamit xamuñu ndax ndax da koy laal parce que mur bi moo ngi commencé moo ngi commencé di laal li nga xam ne mooy muru jumaa ji mu ngi xaa mu ngi laal li nga xam ne mooy muru jumaa ji lii doy na waar euh, lii doy na waar euh, chers téléspectateurs de Dakar Buzz comme ni ñu ko wane rek gis nga gis ngeen gis ngeen gis nga doy na waar Ah, doy na waar doy na waar mbir mi naa mbir maa ngi daal noonu mbir maa ngi noonu chers téléspectateurs gis nga Kër Matar ba ancien ministre ñi nga xam ne seen oto dañ ko gaare fii nañ ko déplacé nañ ko jéem a jëlee fii ñu génnee ko fii ah, waaw ñi nga xam ne ah, vraiment vraiment doy na waar na génnee oto bi génneen oto bi danga ngaa fay. waaw doo xoolal oh. non dafa fay dafa fay. ndeysaan ndeysaan bilay bilay bilay gilaay affaire affaire beneen gars yi mu ngi noonu mu ngi noonu mu. bilay mu ngi noonu mu ngi noonu tey lii doy na waar euh, doy na waar euh, mu ngi noonu. Kër Matar Ba ancien ministre des sports ancien ministre des mu ngi noonu di mu ngi noonu di tàkk. ak waaw mu ngi mu ngi noonu di tàkk mu ngi noonu di tàkk jumaa ji gis nga mu ngi laal jumaa ji mu ngi laal jumaa ji ndeysaan chers téléspectateurs de Dakar ba am na benn ñi nga xam ne yéen nit ñuy seetaan gis ngeen mbir maa ngi noonu mbir naa mbir maa ngi noonu mbir maa ngi noonu mbir maa ngi noonu mbir maa ngi noonu mbir maa ngi noonu eh, am na koo xam ne mu ngi xool ndax jumaa ji amul laalu la amul lu mu laal waaw day laal jumaa ji kay da koy laal day laal jumaa ji ndax jumaa ji am nay oto yu nekk si biir ndax lii lii waaw sapeur nag waroon nañu ñëw pour mën a xool lii ñu mën ko fay nu mu gën a gaawee waaye oto yaa ngi ah, oto yaa ngi tàkk ba jeex tàkk waay oto yaa ngi tàkk ba jeex tàkk vous êtes sur euh, Dakar Buzz en direct li nga xam ne moo xew euh, fii Sacré Cœur euh, fi nga xam ne mooy Kër Matar ba ancien ministre des sports tey jàkkaarloog jumaa ji gis nga garab gaa ngi noonu garab gi nga xam ne moo dend kër gi moo ngi jàpp ah mu ngi noonu. waaw gis nga nekk oto yi dafa am essence te wóorul am na oto yoo xam ne ñoo ngi ci wet bi am na yu tàkk ba pare loolu moom c'est kenn mënatu si dara waaye am na yeneen oto yoo xam ne ñoo ngi fii euh, euh, seeni borom bu fekkee ni ñoo ngi ñuy dégg nañ ñëw jël seen oto ndax oto yi oto essence la gis nga gis nga lii doy na waar lii doy na waar gis nga lii doy na waar gis ngeen waaw gis nga gis nga gis nga mu ngi noonu mu ngi noonu chers téléspectateurs Dakar Buzz comme ni ngeen ko gisee jàmmaarloo yi métti na lool lii li ko indi nag mooy li nga xam ne rek mooy procès diggante Adji Sarr ak euh, Ousmane Sonko Ousmane Sonko nekk ba ba ba ba cité góor gi ñu téye ko fa bañ ko téye nag barricade ko loolu moo tax nit ñi nit ñi fippu nit ñi fippu waaw ku moom oto bi na ko ñëw jël si na ñëw jël si ndax wóorul parce que essence la parce que lii moom mu ngi noonu mu ngi noonu kaay jël seen oto bi oto yi nga xam ne seen i borom nañ ñëw jël si ko seen borom nañ ñëw jël si oto yi waaw lii moo xew ci li nga xam ne mooy euh, kër Matar ba ancien ministre gis ngeen ko noonu gis ngeen ko noonu kër gaa ngi tàkk ba jeex euh, donc gaa yi ñoo ngi jéem a sotti ndox pour pour fay pour fay li nga xam ne sapeur bu ñu ñëwul dina fekk mbir mi yëpp jeex lii lii lii lii doy na waar mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu kër gaa ngi tàkk kër gaa ngi tàkk ñi ñoo ngi koy jéem a fay ak raccord yi waaye tamit doyul waaye explosion yi extraordinaire moom moo xew fii waa ñu nekk si biir kër gi nañ génn ñu génn nekk ci biir kër gi nañ génn ñu ne ñu nekk si biir kër gi nañ génn waaw ñi nga xam ne ñoo nekk si biir kër gi nañ génn ndax lii ndax wóorul ndax wóorul ndax lii moom day na waar waaw sëñ bi jëlal oto bi nga déplacé ko jëlal oto bi nga waaw bu mag bi jëlal oto bi nga déplacé ko waaw waaw ndeysaan gars yi nga leen di jàppale ci uh, nga xam ne ñoom moom seen oto waaw groupe bi gis na group baa ngi noonu te am na groupe bi fi nekk ñoo ngi ñuy signalé police a ngi noonu di doog a ñëw donc bu laalee groupe bi rek beneen musiba la gis na dafa mel ne dafa laal groupe bi dafa mel ne dafa laal groupe bi donc explosion bu extraordinaire uh, chers téléspectateurs de Dakar Buzz comme ni ngeen ko gisee donc mu ngi noonu mu ngi noonu uh, lii nekk na lu lu doy waar loo xam ni wax dëgg yàlla nit ñi teg nii ci seen gët vous êtes waaw waaw douze mille personnes ñoo ñuy seetaan à travers Dakar Buzz euh, mooy euh, chaîne bi nga xam ne moo leen di won information yi nga xam ne mooy information yu wóor te clair loo xam ne vraiment moo nekk nii ñu koy gis euh, Kër Matar Ba ancien ministre tey moom moom moom la ñu taal nii taal oto yi nga xam ne moo fi gaare woon waaw oto sapeur moom gendarme yaa ngi noonu gendarme yaa ngi gendarme yaa ngi noonu gendarme yaa ngi noonu am na ñu génn mais am na ñu nekk si biir ah am na ñu nekk si biir am na ñu nekk si biir am na ñu nekk si biir y a des gens qui sont à l'intérieur de la maison am na ñu nekk si biir wax na leen pour ñu génn waaye ay xale am na génnee leen leen génnee nañ leen génnee nañ leen génnee nañ leen génnee nañ leen génnee nañ leen waaw takk der yaa ngi noonu di doog a egg si auto police ngi noonu di egg si waaye ni nga ko gisee ne waaw sapeur la ñu war a woo ndax lii moom vraiment góorul ak courant bi parce que laal laal na jumaa ji laal na jàkk ji te am na li nga xam ne mooy euh, euh, mooy euh, mooy li nga xam ne mooy groupe bu électrogène bu fa nekk bu ko laalee rek mu mbir mi day waar waaw mu ngi noonu ni ngeen ko gisee noonu ndeysaan gis ngeen gis ngeen takk der yaa ngi noonu di doog ko ñëw waaw gis ngeen takk der yi takk der yaa ngi noonu di doo a ñëw lii nekk na lu day waar waaw gaa yaa ngi déplacé seen oto yi ndax nekk na lu wóorul danger la danger la pour nga jege daal nañ nañ nañ bàyyi xel nañ ko bàyyi xel génn leen ñu nekk si biir kër yi nañ génn ñi nga xam ne ñoo gën a jege kër gi nañu génn nañu génn way way way c'est vrai nañu génn ndax lii nu waar la may ko may ko may ko may ko gis nga gis nga ñëwal gis nga ayca ayca gars yi gis nga comme ni ngeen ko gisee ayca gis ngeen ko gisee noonu day na waar ni ngeen ko gisee day na waar donc waaw yaa ngi taxaw ci kanamu nit ñi pour que nga taxaw ci kanamu nit ah yaa ngi taxaw ci kanam bi taxaw ci kanam ah, ñuy bu ñu xam information yi xam nga information ñun ñoo leen ko jox waaw gis nga mu ngi noonu ñun fii lañu nekk di leen ko jox en direct euh, ci Dakar Buzz kon gis na takk der yaa ngi noonu ñëw nañu euh, ci kër mi nga xam ne mooy kër Matar Ba voilà gis nga gis nga ñu ngi noonu ndey am nday ndeysaan Matar Ba monsieur le ministre Matar Ba mu ngi noonu Matar Ba Matar Matar mu ngi woon si biir kër gi heureusement que takk der yi jël nañ ko mataar Ba génn na monsieur le ministre Matar Ba euh, génn na noonu ñoo ngi koy ñoo ngi koy dugal ci oto bi euh, monsieur le ministre Matar Ba ñoo ngi koy dugal ci oto bi noonu gis ngeen ko euh, ni ñu taalee këram taal li nga xam ne mooy oto yi gaar woon ci kër gi police ñëw na ñëw ñi nga xam ne ñëw nañ recueillir le ministre Matar Ba waaw monsieur le ministre Matar Ba noonu. mu ngi noonu mu ngi noonu monsieur le ministre Matar ba génn na noonu takk der yi jël nañ ko waaw mu ngi noonu mu ngi noonu mu ne na mu ndax euh, Euh, mu ngi noonu mu ngi noonu chers téléspectateurs de Dakar Buzz comme ni ngeen ko gisee nii situation bi metti na trop trop trop metti na lool euh, fii nga xam ni mooy Sacré Cœur euh, di di di kër gi nga xam ne mooy Kër Matar Ba ancien ministre des sports ndeysaan macha allah gis ngeen kon ni ni mu demee ni mu demee policier yaa ngi fii waaw ndeysaan ndekete kër gi li muy tàkk yëpp Matar Ba moo woon ci biir ñi nga xam ni ay garde rapproché la bu ñu woon génn pour protéger ko pour mu bañ a pour mu bañ a génn pour mu bañ génn comme ngeen ko gisee mu ngi noonu. mu ngi noonu chers téléspectateurs ni ngeen ko gisee rek mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu waaw jàmmaloo yi nga xam ne ndaw ñi doon nañ ko jàmmaloo depuis ci suba ba léegi depuis 14 heures ba léegi ñoo jàmmaloo nekk lu lu doy waar nekk lu doy waar nekk loo xam ne wax dëgg yàlla kenn mënu wax waaw monsieur le ministre Matar Ba mu ngi génn monsieur le ministre Matar Ba mu ngi génn noonu ndeysaan mu mu ngi noonu ci kër gi heureusement ñoo ngi koy génnee ministre baa ngi génn information bi ñu leen di jox monsieur le ministre mu ngi génn ndeysaan mu ngi noonu ñuy déplacé monsieur ancien ministre des sports Matar Ba ndeysaan mu ngi noonu mu ngi noonu monsieur le ministre mu ngi ci biir oto bi nga xam ne mooy oto police bi dugal nañ ko ci ñoo ngi koy ñoo ngi dem mu ngi noonu mooy oto bi nga xam ne mooy reculé dem di eh, di waaw mu ngi noonu am ci mu àndal am na ñeneen ñu mu àndal donc waaw gis nga doy na waar daal doy na waar monsieur le ministre Matar Ba mu ngi noonu ñu koy ñu koy évacuer waaw mu ngi dem mais dara jotu ko il est sain et sauf eh, gis nga njabootam bi yëpp génne nañ leen génne nañ leen heureusement bi muy tàkk xale yi la ñu njëkk a njaboot gi après euh, Matar Ba mu ngi fi woon ak garde du corps nga xam ne ñoo fi nekkoon ñu ngi ñu koy doogu génne police nag moo ñëw jël si ko mais ba tey euh, mbir maa ngi noonu euh, kër gaa ngi tàkk Euh, mbedd maa ngi fees dell waaw même euh, ñi nga xam ne sax ñooy ñooy ñooy euh, ñu nekk ci kër yi dañoo jaaxle génn seen kër yi ndeysaan ndax nekk na lii lu lu doy waar lu metti lu lu loo xam ne vraiment nit ñi rafetlu ñu ko ñoo ngi koy ñaawlu ndax mën nañu manifester rek ak comme mën nañ koy waxee waaye tamit yàq bi ak kaas bi wax dëgg yàlla war nañ ci mën a bàyyi xel war nañ ci mën a bàyyi xel waaye nekk na loo xam ne lu doy waar lu doy waar tey fii la xewee ci Sacré Cœur Eh, ci kër gi nga xam ne mooy kër ancien ministre Matar Ba euh, di ministre des sports euh, bi nga xam ne vraiment euh, yàgg na di liggéey Sénégal vraiment liggéey bu rafet mais tey gis nañ ni vraiment këram taal nañ ko taal ay waaye oto yi nag war na mat juróom ci juróom ci juróom benni oto ndax am na aussi xaw naa laal jumaa ji te lii sapeur ba tey ñëwagul donc donc téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan à travers Dakar Buzz ñoo ngi leen koy won abonné leen laajte leen ci li nga xam ne moo xew actuellement di xew Sénégal partout au Sénégal euh, yemul fii kese mu ngi feneen au Sénégal ñu ñaa ngi manifester euh, nu nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla lu doy waar la euh, di ñaan yàlla rek yàlla yàlla defal jàmm ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal lii jege fi lii gëj fi ndax lii doy na waar ndax lii lii doy na waar lii nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla kenn mënu la expliquer li lan la tey gis nga gis nga takk der yaa ngi noonu gis nga gis nga kër gaa ngi bay tàkk ba tey mais policiers yi ñëw nañ pour euh, quadriller li nga xam ne mooy zone bi entre kër euh, euh, Matar Ba ak ñëwoon nañ fi nga xam ni mooy këram heureusement mu ci biir kër gi la nekkoon mais dara jotu ko mu ngi sain et sauve jël nañ ko dem na dugal nañ ko ci auto police bi dem na njabootam nag génne nañ leen wax dëgg yàlla mu ngi noonu chers téléspectateurs de Dakar Buzz di leen xon xibaar yoo xam ne ay xibaar yu wóor la di leen wax ni rek tey fii nga xam ni mooy Sacré Cœur di kër Matar Ba tey incendié nañ ko il y a des voitures qui sont calcinées Et nous voyons que vraiment avec euh, le soutien de la population, heureusement que euh, euh, Monsieur le ministre Matarba était à l'intérieur de la maison. Heureusement, les enfants qui étaient à l'intérieur ont, ont, été évacués très tôt. Et on a vu que vraiment euh, la police est là actuellement, mais la, la maison continue à, à, à, être incendiée. Et voilà, donc, euh, chers téléspectateurs, ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñu toll comme ngeen ko gisee nii nag ci Sacré-Cœur Kër Matarba policiers yi ñëw nañ Euh, quadriller zone bi pour que aussi euh, peut-être sapeur pompier yi amaana ñoo ngi ci yoon bi pour bu ñu ñëwee ñu mën a ñu mën a fay li nga xam ne mooy mooy lakk-lakk bi euh, nekk na loo xam ne situation bu déplorable la situation bu doy waar fii nga xam ne mooy Sacré-Cœur di kër Matar Ba di ancien ministre des sports métti na nag loolu noonu nag ndax wax dëgg yàlla métier de de de journaliste nekkul métier bu yoon parce que métier boo xam ne ay risque la mais depuis boobu léegi ndaw yi ñoo ngi di gis ñu engagé wu journaliste yi nekk fii li nga xam ne ñoo koy mu ngi noonu kër Matar Ba ancien ministre lañu taal noonu euh, donc ak euh, euh, moom lañ bëgg taal noonu moom lañ taal noonu ndeysaan bëgg ñu ko taal waaye taal nañ ko ba pare comme ni ñu koy waxee rek ndeysaan taal nañ ko ba pare donc oto yaa ngi noonu di tàkk na ba jeex ndeysaan oto yi tàkk na plan bi ba tey am na jumaa joo xam ne moo jàkkaarloo kër gi nga xam ne mooy kër Matar Ba waaye xamuñu ndax dina laal jumaa ji mais ba tey tàkk-tàkk yaa ngi continuer laal na nga xam ne mooy garab bi am na ñoo xam ne ñoo ngi nekkoon ci biir waaye yàlla dogal na euh, génn nañ euh, lii nag situation bu fii dëkk bi toll mu nekk situation bu déplorable mu nekk situation bu doy waar euh, di wax ni rek Sénégal tey gis nga ngi nii lii nii ñaanuñu ko yàlla dañ dañ wax ni rek lépp ci waxtaan la war a commencé terminer ci waxtaan lépp lu ñu leen mën a wax rek wax dëgg yàlla Sénégal benn bopp la benn drapeau la benn gaal la kenn mënu ko séddoo kenn mënu ko partagé li ñu ci mën a def rek mooy ñu pencoo ko toog ko waxtaane ko ndax Sénégal xamul yi euh, Sénégal hérité wul li nga xam ne moom la ñu ci ci ñun maam yi loon li nga xam ne ci mooy teraanga fulla ak fayda jëm waaye nag wax dëgg yàlla euh, situation bi kenn buggeewu ko woon nii mais liñ ci mën a wax rek euh, di wax ni képp koo xam ne kilifa tiida nga wala kilifa aada nga wala kilifa cosaan nga nga wax ci li nga xam ne mooy situation dëkk bi parce que dëkk bi foofu la foofu la toll ndeysaan mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu euh, chers téléspectateurs di leen won nag li nga xam ne moo fi nekk euh, moo fi xew fii nga xam ni mooy kër euh, Matar Ba di ancien ministre de sport di leen wax ni rek vraiment lii nekk na loo xam ne lu doy waar la ndeysaan mu ngi noonu mu ngi noonu ndeysaan doy na waar ayca ayca ndeysaan ndeysaan mhm. naam gis nga il ñun ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi ñu yëkkati suñu kàddu wax ne euh, Kër Matar Ba moo ngi tàkk ba ñu nga xam ne ba moment bi ñu toog di waxee ak yéen sapeur pompier leneen li nga xam ne aussi moom lañ fa gis du leen lu dul ne moo di njabootu Matar euh, Matar Ba euh, ñoom ñooñu ñëpp dañ leen mujjee rawale nakate bi mbir bi di am yëpp ñun ñi nga xamuñu woon ne Matar Ba moo ngi woon ci biir kër gi waaye gis nañ bii police ñëwee ci la Matar Ba génn ñu def ko dugal ko ci li nga xam ne mooy ci oto police bi moo si am benn jumaa joo xam ne maanaam maanaam làkk na euh, làkk na gis ngeen euh, ñu avancé ñu avancé tuuti